jàngeen jëf mbokk yeeg xarit ñuy seetaan à travers Equivox TV fi mu toll nii nag tiis ak nakar lañu nemmeeku fële ca Kaolack rawatina Medina Baye ginnaaw ba kii di seen doom Mohamed Kabir Cissé fato Mohamed Cissé nag lu toll nii si juróom Samba Boye ñoo ko attaqué moom ak famem ci guddik àllarba ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu fële ca Fass kawoon bu Kaolack ginnaaw biñ leen attaqué nag ci la Mohamed Kabir Cissé xeex ak yooyu les Samba Boy ngir sauver kii di waajuram bu góor waaye rek si la yooyu lee génnee seeni ngànnaay lu ci mel ni jaasi daal di ko góor-góor yu métti ba mu jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti Samba Boy yooyu nag jot nañu yóbbu ñaari million ci suñuy koppar ak juróom benn junni dollar américain mbir mi nag yemul foofu ndaxte kile di Mouhamed Kabir Cissé ak waajuram góor ginnaaw bi ñu jëlee gaañu gaañu yu métti ci song boobu dañ leen daal di évacuer ci euh, hôpital Ibrahima Niass bu Kaolack 4 heures du matin ba 11 heures ci suba yooyu les responsables defuñ benn yoon li leen war ci euh, yooyu les victimes ndaxte koppar bi nga xam ne nag moom lañ doon laaj joxe guñ ko woon ba tax na rek Mouhamed Kabir daal di jaare foofu ñàkk bakkanam tax na rek ñi nga xam ne nag ñoo di taalibe bàyyi daal di mer ba futtu di ñaalu rek bile jëf ci fàttali nag ki nga xam ne moo di Mohamed mi ngi toll woon ci ñaar fukki at ak ñeent moom ak famem nag ñu daal di jóge Amérique ñëw dëkk si fii ci Sénégal ngir jege ki nga xam ne moo di seen sëriñ di maam Cheikh Ibrahima Niass à travers ma voix groupe Equivox yëpp ñu ngi jaale famem yëpp rawatina waa Medina Baye Niass jërë ngeen jëf